mooy le cinq bii nekk dama jot courrier bu jóge ci sous préfet bu arrondissement bu Sangalkam bu Bambilor lan moo nekk ci biir réunion bu ñu ma koy wooteloo benn découpage nouvelle découpage bu ñu santé boo xam ne le sous préfet moo ko tënk andil ñu ko ñu gis ci doolu commune Jaxaay dañ ko éclaté maanaam dañ ko dañ ko tas dañ ko dagg-daggee jël ñàkk yóbbu ko Tivaouane Peulh ñàgg jël Médina Thioub yóbbu ko Tiwa yóbbu ko Sangalkam jël jaxaay am lu ñu ci yóbbu ko Kër Massar am dëkk yoo xamuñu fu ñu nekk kenn xamul fu ñu nekk li ci gën a doy waar nag mooy buñ ne woon dañuy ut population bu jegante diggante jaxaay siège bi fi mu nekk ba Niacoulrab un kilomètre six cent trente la da ngay wut lu jege nga bàyyi benn dem doxi fukk fukki kilomètre pour nga jóge fofu nak dem Sangalkam il faut nga def 9 km, 35 mètres 9 km, 35 mètres dama koy préciser mu leer wa nak ngay bayé 1 km bu teg tuuti dox ñëw bo amul paas dox waxu dugg yek exi té bi il faut nga jël auto fay 5000 francs ñoo dañuy administrer lolu so démé tey lebu gi 5 km, 5 mètres yaa ngi ci biir jaxay nga bëgg fee bayé nak 5 m légui def 12 km pour dem Sangalkam ñu ne bu jege no lay mel le ministre Oumar Gueye moo la gën a xam ne projet la mun ñoo mun la dox ci kaw nit ñi xëy fajar yi dugg ci presse bi fu ne mu bind fa duggulu fa day sóob ñun ñoo àndoon man ak moom di reyante ba Malick ba daanu Sangalkam maa ngi lancé le président Macky Sall la koy neex dëgg mooy ay bakkan wadd moom Oumar Gueye parce que loolu moom la miin kon découpage bi nga xam ne mbokk yi àndu ci administrativement nag man mi maire tey fii nag ci 47 yi deux noms moo fi am ñaari conseil ñoo ci diine ànd nañ ci projet bi ñi des ñëpp an lamité nous disons no